asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu forte délégation bu ma fekk bu Pape Malick Ndiaye mi jiite ko ak sama papa Dieng Diop maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm dama fee ñëw comme responsable politik tey mën naa ne dama fee ñëwoon bu njëkk ak kaam en convergence autour de Macky bu Moustapha Diop bii moom damaa ñëw di def sama déclaration politique bi xam te ni kees laa ko doon tey xëy na ndogal moo si nekk ba dañ ko mujjee reporté ba semaine prochaine tey dama ñëw indil leen pas-pas bu ànd ak ngor pas-pas bu ànd ak ngor mooy bu Mouhamed Ben Diop jiite mooy mouvement bi ñu Mouhamed Ben Diop jiite moom mi ngi ba pari ñuy liggéey moom su lu yàgg pendant deux ans maa ngi ak moom ñu siy liggéey yàlla def na ne tey mën naa ne ma la ma am baaligaam a gënal baaligaam ma fi papa am ma fi yaay aw ma fi doom tey mun naa ne lu mu am si àdduna yéene naa ko baaliga lu baax lu ne dama koy jële kees indi ko baaliga ndax xëy na ah, gis naa fi teraanga ji ñu fi defal ak yëg-yëg bu ma fi am moo waral ne tey ma waa pas-pas nañ ñëw seeti waa baaliga ànd ak ñoom doole leen ndax baaliga benn ngor gi ñuy wax si pas-pas pas-pas dafa ne ànd ak ngor pas-pas ba ànd ak ngor te xam naa ni baaliga góor a ngi fi ndax man su ma rombee si dëkk bi sax xale yu ndaw sax xam nañ ma léegi ma ne nag tey saw nañ ñëw baaliga seet si leen waxtaan ak ñoom su fekk suñu papa yi ñoom ñu wax seen xalaat ak li nga xamante ni tey ñoom manqué nañ ko si baaliga ak lu ñu bëgg ñun ñu dolli ko ci baaliga ñoom ñu wax seen doléance ñu réglal leen ko incha allahu rabi te am na yeneen mbëbën yi xamante ni ñoo ngi ci bëgg nañu baaliga tey mel na ni kees mel incha allahu rabi loolu daal laa bëgg ma ni tey naa ñëw seet si leen ñu suñu papa ñu moom tamit mu saan si quelques kàddu bu ñu fa jógee ànd ak saw mi nga xamante ni moom mooyo yor délégation bi nga xamante ni moom la tey Cheikh kii yónni ah, Mouhamed Ben Diop bu pas-pas tey Cheikh Bamba Traoré nga xam ne mooy coordinateur national bi woor naa teew wante yàlla dafa def ne mu ngi ci benn réunion ñu bàyyi te nag ñun ñoo ñëw en de forte benn délégation tey seet si leen alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokki jullit yi e ne ne ñoo ngi leen di dalal jàmm di leen wax bisimilah ci dëkk bi nga xam ni dëkku teraanga la dëkku ngor la dëkku jullit la e yàlla dañoo tënk nag ci loo xam ni lépp lu ñuy def dañ koy def ci kaw kilifteef ginnaaw ba yàlla ak yonent bi wéyee jotaay bi yàgg nañu ko fee def ak sunu nen ji andil nañ ñu fi nit ku ne andil nañ ñu ko fii nit ku fi ñëwit di ñu wax teraanga joo xam ne ci la ñuy mën a basé wu di ànd ak ñoom kenn musu fee ñëw nag ba ñu rus ñun kon ñu ngi leen di sant ginnaaw ba yàlla yonent bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm képp koo xam ne ànd na feek ñoom ñëw fii ci dëkk bi ñu ngi ñaan yàlla li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ci sa sago yàlla na ko yàlla def ci kaw loolu nag ñun dañoo baaxoo nekk ak suñuy kilifa ah lépp lu ñu bëgg it dañ ci diisoog suñuy kilifa moom moo yore ñoom ñoo yore kàddu ñi te oustaz mi nga xam ne tey mooy kilifa xadi te xadi sos jotaay bi ginnaaw ba yàlla ak yonent bi wéyee dafa nekk uh, Thiès yaramam naqari a ah, mu nekk fa xadi ñu nekkal ko fi liñ ko fi nekkale it ci ginnaaw kilifa gu mag gi nga xam ne moo fi kilifaam moom ci ginnaawam la ñuy topp ah kon bu gan ñi ñëwee nañ leen dalal ni leen bisimilah booy leen présenté leen sunu kilifa muy Cheikh Sidi Diène waaw moo fi lépp tey lépp loo xam ne wax na ko ci ginnaawam la ñuy topp waaw cheikh bi ñii sunuy gan lañu say gan lañu ginnaaw ba yàlla ak yonent bi wéyee jotaayu xadi baraaji soxna oustaz moo indi lii lépp addina nag nii lay demee da benn tuuti tuuti lay doon di ñëw kuñ la présenté it nga def ko comme sa bopp te noonu la dëkk bi baaxoo kon ñii ñi ngi leen di jàppe comme pap mii nga xam ni moo fi ñëwoon démb ak bërki démb ñuy jëflante ba yàlla defal ñu teraanga ji ba tey mu indil ñu kilifa gii saw léegi waa ñu war a jàkkaarloog moom kon ñi ngi lay wax bismillah di la xamal ne la ñun dey ay jullit lañu lépp loo ñu wax teg ñu ci dëgg ñu ngi ciy ànd ak yow ba keroog lu yàlla dogal li nga bëgg nag bu fekkee baax na ci yow baax ci ñun yal na ko yàlla àggale daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di présenté suñu kilifa gii muy Cheikh Sidi Diène Cheikh Papa Abdourahmane jenn rakkam mi ngi ñëw dañoo fekk ci réunion looloo tax waaye bu soobee yàlla balaa jotaay bee àgg dina ñëw kon Cheikh bi bisimilah gan ñaa ngi nii. ñu di dalal di leen wax bisimilah di leen wàcc tam ci seen wàccuwaay di ñaan yàlla. Eh, lépp lu ngeen jóg dox yal na si yàlla def barke bi jaay Seydina Muhammad eh, fekk na mbir la moo xam ne xaw na ma surprise bett na ma ndax mbir moo xam ne mu too cee eh, xam dara dara dara bu dikkee rek ne la kaay wax ca du yomb waaye nag gis naa tam ne lu baax la mhm. te ku bëgg lu baax lu ne bu la ne kaay ci lu baax mhm. allah kulli xaan bu dee ñaari kàddu sax mhm. da nga koo ci war a mën a sànn kon li xew moo di eh, comme ni Malick wax léegi suñu suñu rakk di ay jullit eh, yore itam ay jumtuwaay yoo xam ne ay jullit da koy ittiwoo muy lan eh, moo dañu fee yor ay ay ustaas yore fi ay imaam comme bu ñu tuddee imaam tudd nañu jàkk ja waaye bu ñu tuddee ustaas tudd nañu jàngukaay ba ginnaaw lool ñu yor fi ay jigéen yoo xam ne ñoo war a yëngatu comme seen nawle te it yëngatu bi demewul noonu kon bu ngeen dikkee wax ñu lii dañuy sawar lool ci ànd ci ak yéen ba xam rek lu ngeen muy tëddee euh, politique bu fekkee politique la te ma comprendre ca dara wax ji yëpp ni ci politique dañ ko wax ne rek mais la am solo ak wuñ ca mooy làqu ga làqu nga nag lay waral ñu làqul la yow mooy la nga waxante ak nit ñi ñu jëf ko bala ñu àgg ca ca ca booba kon li may bëgg wax mooy da ngaa tudd léegi ne ba ragaluma dee la ca ginnaaw dee laa ginnaaw dee nag bu méttee rek wax lu amul da caa bokk kon ñu ngi leen di dalal jàmm Sidi mi nga xamante ni tey ah, moom la kee gën a xam maag papaam a bokk ndey ak baay muy sama doom papaam di sama rak waaye ñu am fi kilifa goo xam ne mooy sama mag mag ñoo bokk ndey ak baay baaba la tudd wala dee ko te te ma woo ko mu ñëw soxnaa ma ngi toog kon daal ah, lu ma a xew dinañu ah, bàyyi yem foofu wax ji ci lan bëgg a xaar siidi ndax itam gaawtu baaxul boo daatoo ba dugg ci loo xamul bu ëllëgee rëcc la la ciy fekk wala bu si di ñëwee nag hmm. ba ñu gën a waxtaan hmm. mbaa ah, ñu dem ba ma xam ne hmm. bi mu fii la jóge fii la jëm bu boobaa rek dinaa xam ne da nekk jërëjëf saw taala wa maa ngi nuyu mbokku Balika di jiital si nuyoo bi imaam yi ak ustaas yi di ci teg kilifa diine yi mooy chef de village yi ak chef de quartier yi fi ne waaye di nuyu ñi ma feggool muy sëñ Malick njaay mii ak sëñ di jenn mii ñuy ay kilifa kii di rakku chef de quartier bi kii di bokk ci ulamaaw yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaye di nuyu soxna yi nekk sama ginnaaw waaye di leen sant si teraanga ji ngeen ñu teral ak dalal gi ngeen ñu dalal gis nañu teraanga ji suñu xol sedd na guy man Ahmadou Sow laa tudd ñu may wax Baye Bille ma bokk ci parti bu ñuy wax mouvement pas-pas ku ñuy wax Mouhamadou benn Diop jiite ko wadd mi di suñu kóllëre mu bàyyi léppam fas yéene ànd ak ñun liggéey bi mu ko defee mu woote woon woote boo xam ne dañ ko jàppoon waaye situation tënkuñu ba ñu fomm ko moom de mu ni ma waa Balia de séq na ma ak ñoom kóllëre ak teraanga joo xam ni rus na ma ma wax leen lu fecciku su ma sañoon damay yeggale foofu ñu mottali pas-pas bi ndax ñun suñu parti pas-pas la tudd pas-pas nag saa yoo ko waxee président benn Diop nee na laal nga xolu nit ndax pas-pas rek mooy nit nit lu mu mën a def su si amul pas-pas du ci jëriñu kon ma andil leen siyaar ak nuyoo président Ben Diop mi ngi ko jël mu teg ko ci loxo Cheikh Amadou Bamba Traoré mi nga xam ni mooy coordonnateur euh, secrétaire national pour la propagande man mii ma tof man lañ tofal ci moom moom dafa nekk réunion kom ni ko Wade waxee moo tax mu yebal ma ma ñëw Cheikh Amadou Bamba moo ma yebal ma ñëw waaye dañoo bëgg ngeen xam ni lii may wax lu si jub président Mouhamed Ben Diop moo ko wax waaye bu dëngee rek man mii maa ko dëngal waaye moom lu jub rek la ci yéene ndax li mu bëgg mooy ñu ànd ci àndu ngor li mu bëgg mooy ci ñu ànd ci àndu pas-pas li ñu bëgg mooy ñu ànd ci ànd boo xam ni kenn ku ne di nga ci gis sa bopp nit nag balaa ngay ànd ak moom da nga koy xam moom walla nga xam wala moom mu xam la na ñun ñi ngi doog a ñi ngi doog a ñëw balika ndax wàdd mii moo ñu andi baalika président Mohamed Ben Diop ñëwagul baalika Cheikh Amadou Bamba Touré ñëwagul baalika man saw maa ñëwagum baalika tey laa fi mos a ñëw kon suñu ne xamante nañu dañuy nax suñu bopp waaye yéen dañoo ñaan yàlla xam leen ci kanam mooy li jëwriñ jii jënn wax dinaa leen wax kii nga xam ne moo ñu yebal mooy kan mooy kan mooy président Cheikh Amadou Bamba Diop Cheikh euh, euh, Mohamed Ben Diop président Mohamed Ben Diop dama leen di wax mooy kan ngeen xam kii ngeen am yéene àndal kan la président Mohamed Ben Diop li ñuy wax consultant international la consultant international mooy koo xam ni am na doole di saytu liggéeyukaay yi si àddina bi fenn fu ne fu liggéeyu liggéeyukaay ne buñ ko fa jëlee sañ na dugg ci biir saytu ko loolu mooy consultation internationale dolli ki ingénieur financier la ingénieur financier ingénieur financier boo ko déggee mooy koo xam ni bu mbirul xaalis lëjee su banque yi lëjee wala su dugalante xaalis bi jaxasoowee ñoom la ñuy woo ñoom ñoo koy lijjanti kooku ingénieur financier la loolu bokk na ci li muy liggéey bokk na ci banque mondiale lu nit ñàkk xam-xam xam nga luy banque mondiale jàng nga koo Moi wala xam ko mooy fi nga xam ne fa la ñuy saytoo kullu bi expert la fa expert moi, koo xam ni bu ñuy lijjanti alal ji ala kulli xaal moom am ci ci dogal am ci digle am na ci dit on jiite na ay entreprise financière fii Sénégal yu ñuy wax SOMAC nga xam ne lépp lu seen xaalis moo ko tamit foo xam ne foofu la ñuy wax mat force mu lijjanti lépp luy seen xaalis si li ma mën a wax rek ci li mu yilif si li ma mën a wax si li mu yor si liggéey am na yeneen liggéey yu muy li muy liggéey si àddina bi amaana buñ ko fi waxee du ngeen ko mën a dégg waaye dañuy wax loo xam moom xaalis moom ku koy lijjanti ku ko sa moom dañ la bëgg wax ni moom regg na nit ku regg lañ nar a jëflanteel koo xam ne xam na fi mu jëm moom moo ñu yebal te li mu wax danañ leen ko wax nee na li mu bëgg mooy lii yii bokk na ci li mu bëgg nee na bëgg na képp koo xam ni sénégalais nga sa xol bi yàlla delloo ci ngëm bu dee yaa xam catholique nga bu dee yaa xam jullit nga sa xol bi yàlla def ci ngëm ba nga xam ne yàlla moom buur la ba nga xam ne yàlla kenn la ba nga xam ne yàlla la teg li nga mën ba nga jotaat sa bopp ndax fi mu ne dafa mel dañoo tënk sénégalais si njaam nee na bëgg nañu génne ci loolu kenn ku nekk xam sa bopp te loolu pas-pas moo ko mën a def jox nit xaalis du ko def may nit ay millions du ko def fexé ba nit ki tog pas-pas ci mom ba pas-pasam wat ci mom néna lolu mo moo koy defal nit kon néna bëgg na pas-pasu doomu adamai, yi ba mu ñor doomu adama bu ne xam fi nga jëm néna bok na ci ben doomu adama bu ne nga am conviction moy nga am yaqinul khalbi sa bir xol nga xam ni man mi dama wara jëfël dëkk bi waye nga nan suma tolu golo néna buñ ko wutati tolu golo moy golo lay sul gerte tiim ko ni ko boo saxul mësuli lekk mooy mu la wolof yi di wax ni njariñ loo fekkee kon boo ko fekkee wul yow doo ko tabax mi ngi mel ne du ma tabax kër ndax am naa juróom-ñetti fukki at amalu ma njariñ nee na bëggul loolu dafa bëgg dëkk boo xam ne kenn ku ne da ngay naan naa liggéey dëkk bi waaye bul xaar la dëkk bi defal ne la dëkk bi defal bàyyi ko dëkk bi dana la ko defal nee na loolu bokk na ci li nga xam ni loolu bokk na ci liggéeyam nee na bëgg na kenn ku nekk sénégalais nga xam sa bop kenn ku nek ngay lek ba sour kenn ku nek ngay teud fu noy waxul kenn ku nek nga am milliard de waaye kenn ku nek sa yo beugé lek na nga lek ba sa bir fess sa yo beugé dox nga dox aajo bo am suñu borom yàlla na la ko fajal ne lolu bok na ci ay yefum nee na waaye fi muy tek tànkam moy ci liggéey nee na lenn nak moy la jël def ko def ko def ko sëyfu def ko jaasi nee na mooy liggéey bëgg na lo sénégalais yi bëgg na lo sénégalais yi ndax mag ñi fi nekkon muy catholique muy jullit muy murit muy tijaan koo fi gis si liggéey la tënk ay ay ay koo fi rek si liggéey tënk ay ñoñam nee kon moom mi ngi tënkaat ñi mu fas yéene àndal si liggéey ba tax na bokk na ci li nga xam ni lu ñu njëkk a def ñi ñeneen ñi yëngu yëpp dañuy wax ni damay financé ñëw financé la ñun bokk na ci suñu yëf def ay formation jàngal la ni ngay nappe au lieu ñu may la jën parce que nañu doomu aadama bu ne sénégalais bu ne nga mën a jël sa jaas dem si dex gi nappal sa bopp su ko defee dootoo ñaan tumurank dañ loolu mooy fi mu teg tànk moom Cheikh moom président Mouhamed Ben Diop kon kii moo ñëw fa tàllal leen loxoom fas yéene ngeen ànd ak moom si ginnaaw wàdd mii li tax ñu ñëw nag mooy li ñuy wax meeting bi dañ ko fommoon waaye rafetul ñu fomm ko pare toog ngeen li ñu déglu moo tax ñu jóg fas yéene képp koo xam ne waroon nga ñëw ñu ñëw wax la li yéeney président li yéenay Mouhamed Ben Diop ci dëkk bi lii la en tout cas liñ leen di dénk mooy tàllal nañ leen loxo te incha allahu baaliya baalika bokk na suñu dox baalika bokk na suñu dox waxuñu leen ngeen bàyyi li ngeen jàppoon déedéet waaye da dañoo leen di ñaan ngeen xool fi seen njëriñ ne ngeen téye ko bu seen njëriñ nekkee suñu ngeen jàpp bu nekk suñu ngeen bàyyi ñun lii la waxuñu kenn bàyyil kee jàppuñu loolu du yëfu diine du yëfu jullit du yëfu dara waaye dañu ni ngeen toog am ngeen bët am ngeen xel président benn Diop nee na doomu aadama boo gis am na xel am na xam-xam nee na bàyyi ko mu tànnal boppam loolu nag moo tax moom ba fas yéene togg pas-pasu sénégalais yi ba sénégalais yi xam li ñu war a jël ak li ñu war a sànni kileen leen di nax ak kileen leen du nax ñu xàmmee ko lii mooy dox bi lii mooy yéene ji ëpp na lii li ñu wax waaye damaa da da waxtu yi moo ñu tënk waaye yéen waa Balika na ngeen xam ne am ngeen chance

ak Wade waxtaan si ak ki nga wax léegi Sidi xaw ma danañ si waxtaan ak moom bu baax a baax waan tàllal nañ leen loxo te yàlla na suñu borom téel ñu loxo yi te yàlla bu yaakaar tas ndax am nañ seen yaakaar ndax fii xam nañ dëkku diine la xam nañ dëkku diine bu wér la loolu moom xam nañ ko bu wér a wér a wér kon suñu bu ñu fi tàmbalee ñun suñu xel day dal kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar mbokk yëpp di leen wax di leen jégalu bu baax si waxtu wi waaye ñu ñu tënk rek ñu dem julli ci tamit incha allah